Euh, cheikh bi ñu ngi jëm ci campagne électorale muy élection locale euh, nit ñi am nañu tiitaange euh, ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu nguur ak opposition nit ñi dañu jàpp ne élection yi dana tàng lool ana lan nga ciy baaxee askanu Sénégal. waaw loolu moom xëy na waxtaanoon naa ci lu yàgg am na ay kilifa yoo xam ne ay am nañ ay ndombal tànk ci ci réew mi waxtaan waxoon naa ci ñoom. Mm-hmm. ndax président Macky Sall nekk na koo xam ne. li naan xaw ma lana lay song waaye jàmbaar dagg koy daan. Hmm. waaw loolu moom ñëpp bàyyi ko xel ndax réew moom ba mu toogee rek laa gis ni man réew dana tàng dana bëri nangam dana bëri nangam dana bëri nangam. waaye léeg-léeg daanaka mooy li ma la doon wax léegi ci combat bi daf cee nekk. maanaam nit su waree ñàkk léeg-léeg da dul gis li koy may. waaye loolu moom wax naa ko ay kilifa yoo xam ne ña nga ca moom bu fekkee nag dañ koy jàppale wala ñuy jàpp ni maanaam lii mu lii mu jiite ñoom ñoo ko bokk ñoo ko war a ànd liggéey rafet. loolu danañ ko def la feeg defuñu ko it réew mi la am jàpp loolu moom lu leer la moom. lan lan la ñu war a def pour réew mi mën a am jàmm. waaw xam nga dafa am lu nekk dafa am lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy loo gis ci àdduna na lu ñoom am na lu nu war a def moom président Macky Sall am na lu mu war a def loo xam ne bu ko la feeg defu ko it du nekk ci jàmm te lu yomb la te wax naa ko kilifa it wax naa ko DG koo xam ne DG directeur SICAP la woon. élection yi si ndax woon na ma laaj ma ni ma euh, élection yi nan lay demee ndax nit a ko jox ma ko téléphone ma daal ni ko élection yi de Idriss waaye président Macky Sall mhm. la feeg la feeg def ko du nekk yi jëm élection locale yi dina metti tey dina metti ci ñoom waa nguur mi day yëngu moom moom ku ñàkk élection yi moom da ngay réew mi élection yi moom ku ko ñàkk ku nekk da nga ñàkk réew yëpp ci yeneen élection yi ñu jëm waaye lu nekk dafa am lu koy lu koy waral manifestation yi fi xewoon nag yooyu yëpp waxoon naa ko te li ma fi ma ko waxoon it noonu la ko ba tey ndax ci ab télé lu mel nii laa ko waxee woon waxoon naa ni réew mi dana tàng dana am ay manifestation corona bi yëpp wax naa ci la ma ca xam ak ca na ma ko waxee woon laata muy ñëw ci dëkk bi ak solution yi nga xam ne moom laa wax ni moo fiy jëlee corona bi la fekk defuñu ko it corona bi man jàpp naa man maay seule personne bi nga xam ne ci àdduna man maa am solution ci corona. yow moom la. waaw loolu moom wax naa ko waxaat ko waxaat. Hmm. waaye nag du ma ci soññi kenn man ba saa yu nit jógee ci man bu ñëwee lépp lu yay yitteem saa borom yi dana yëngoom déet. wala dina. waaw loolu moom loolu moom gisaguñ ko yëngu gi moom li ma la wax rek. ba président Macky Sall toogee. Hmm. laa gis ni réew mi moom dana yëngu moom yëngu yëngu yëngu yëngu yoo xam ne te yëngu-yëngu yooyu muy yëngu lii may wax bu ko defee dana dal su ko defut du dal hmm. waaw ko defee réew mi dana dal su ko defut it ci aw tàngoor lay bàyyi rek yaakaar nga ne ki nga xamante ni moo nekk ci euh, kuje gi te it euh, ñu bàyyi ko xel loolu Ousmane Sonko dana am dara am déet wala bokk mbir yi dina metti ci moom ak coalition xam nga xam nga loolu li tax dama bëgg a wax dina am dara wala du am dara maanaam day nekk loo gis xam nga dama bu ma ba xësee ba wax ba nit ñëpp di ma déglu a damay wax loo xam ne lu ma xam la. dëgg la mooy tax bu ëllëgee buñ ma ci joxaat question ne waate ma man cee tontu waaw moo tax ma bëgg di wax ci li ma xam li ma xam tal mooy xam naa ni Macky Sall ba mu toogee ci réew mi wax naa ko ay nit wax ko ay kilifa yu ko jege wax naa leen ko am na ay nit ci politique yoo xam ne ñu ngi doon doon dégg fii ci diwaanu Touba wax naa leen lay lay lay tax ñuy déggaat leen wax naa leen lay tax ñu jaxasowaat président Macky Sall bi waxuma leen ko ñoom en direct waaye wax naa ko seen i mbokk wax ko ay doomam sax te ñu ngi may dégg ne naa leen seen kilifa gii bu defut lii ci loo xam ne li li la nit ki naan def ko boo ko calculé mu tudd dix mille francs su ko defut du maanaam du am jàmm du wér sax laay lu ci lam nekk moom wax naa ko ay ay kilifa ay loolu xam naa dinañ ci waxaat ci suuf la wax ni mu demee li ma mën di wax daal wax lu ma leer um hmm. lépp lu may wax loo xam ne saa yu ma ko waxee rek bu ëllëgee bu ma ci nit ma mën ci toog waaye daal li ma bëgg wax mooy suñ borom may nañu loo xam ne lépp luy xew ci réew mii tam doon lu ñëpp xaar am nañ ci kàddu comme ni ci ñëpp am kàddu ndax yàlla dañ ciy wan lu mënut kenn. Mhm. sëñ bi fi ñuy fi ñuy fi ñuy jeexalee rek euh, léegi léegi la ñëw ci sama xel muy ñu gis ne fitna gi dafa bëri lool ci réew mi surtout ci ndaw ñi maanaam wàllu violence bi nga xam moo nekk ci biir réew mi euh, loolu loolu lan lan moo ci sa xalaat lan moo indi loolu lu ñu mel. man ni dafa bëri ñu daw seen responsabilité boo ko njabootee. Mhm. da nga koy yilif ndax nit saa yoo ko yilifee yilif nag du caagi ne da nga koy digal defal nangam bàyyi nangam déedéet li ko war ci àdduna muy mu lekk wala lum naan wala lum nangam dañ ci